loolu c'était c'était prévisible avec ce qui s'est passé entre ñoom ñaar mhm. ci élection présidentielle yi nga xam ne peut-être que sénégalais yi sax découvrir nañu ko ndax moom campagne na campagne am dès les premiers jours sans pour autant mu am le soutien de son mentor muy le président Macky Sall mhm. bi ñu demee ba ci diggi ba bi Macky Sall di def réunion secrétariat wax leen mën ngeen battre campagne tam taxul mhm. ñu am les moyens bu ñu battre campagne ñenn ñi ci seeni poche lañ doon génnee Euh, pour jàppale ko mhm. donc convoqué nañu ko fi mu ñëw présidence de la république poireauteloo ko mu dellu këram euh, te la mu bëggoon amu ko donc mhm. diggante boo xam ne la diggante bu bu ñagas la ci les deux hommes ci li nga xam ne moom moo mujj ci bi ñuy wax reporter élection woote dialogue je pense que le discours de euh, Amadou Ba mooy discours bi fa gënoon a gàtt foofu noonu ak li nga xam ne moo fa amoon ci entre entre entre ñoom ñaar élection yi également ñenn ñi ci certaines informations wax ne même pour sa première sortie bi mu convoqué la presse mooy jour élection yi le président moo ko dissuadé ba mu renvoyé ko ba le lendemain à midi pour faire face à la presse yooyu noonu yëpp su fekkee am na euh, par rapport ak résultat yi génn Bassirou Diomaye Faye euh, gagné premier tour ba devenir le président la donc euh, foofu diggante boobu dara desatu fa <laughs> li ci desoot kus néew ñu ko doon rafetal di ko masla ma doon xëy na dem élection naa muñ su ma gagné après man ma xam ni may def mais comme gagnéwul donc cette séparation est inévitable mais non séparation moom mooy xay na dafay dem wuti créer son parti wala mu créer son mouvement mm-hmm. ndax il sera le chef de l'opposition je ne pense pas parce que ni ñu koy définiree mooy soit mu nekk koo xamante ne il a plus de députés à l'Assemblée nationale wala ki nga xam ne moom moo jël deuxième à l'élection présidentielle donc mm. foofu également am na benn jamono euh, doon nañ ci werante entre sax période boobu ndax dafay nekk Idrissa Seck qui était deuxième en 2019 wala Abdoulaye Wade le président Abdoulaye Wade qui avait plus de députés à l'Assemblée nationale bi ñu koy wax après la présidentielle de 2019 maintenant également ci biir consul loi bi également parti la wax waxul coalition alors que c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo dem élection présidentielle loolu aussi je pense que ci lu ñu war a joyanti la war a mën a bokk ci réforme yi pour que ñu mën préciser ndax parti la wala coalition de partis politiques yi ko jiite woon moom mooy nekk le chef de l'opposition mais le débat va certainement se poser encore euh, ci bu ñu demee peut-être ci ci mais Amadou Ba et Macky Sall cette séparation je pense que c'était inévitable c'est important loolu la je pense que il y a eu tellement de problèmes dans le dans le processus après le choix euh, ba nga xam ne euh, voilà euh, défaite bi sax à la limite. bettul kenn quoi c'était prévisible. Euh, et dans dans dans dans le choix de Amadou Ba aussi il y a eu tellement de de contestations au sein de l'APR euh, que aujourd'hui il est inimaginable peut-être vouloir croire que peut-être Amadou Ba peut continuer à être euh, celui qui va diriger peut-être la PR ou je ne le je ne le pense pas parce que même étant le candidat il y a eu des pontes de la PR yu ko dénigré publiquement et à visage découvert donc loolu day wax ni rek te moom mooy candidat bi nga xam ne moo war a dem élection léegi nag élection bi romb na ñu gagné ko je ne crois pas que ñooñu euh, tey jii ñu mën a delluwaat. ci gannaaw pour pour accepter ko mu jiitu jeune ne le crois pas te moom loolu war na ko xam il le parce que quand même moo ñu gën a jege gars yi tey bu fekkee il veut avoir un avenir euh, politique mais il doit il doit il doit de son côté sos loo xam ne comme le président Macky Sall l'avait fait euh, pour pouvoir euh, gagner deux ans après moom bu fekkee ni dafa bëgg avenir politique il faut que mu def noonu maintenant aussi chef de l'opposition ou pas pense que loolu tamit euh, le président n'en a pas parlé le président Diomaye ci réforme yi mais je pense que lu ñu war a waxtaane la mhm. parce que aussi le Sénégal a besoin de ça euh, qu'on puisse savoir qui est le chef de l'opposition ou en cas la coalition peut-être que euh, sax et puis ñu protéger parce que les Sénégal léegi rare na nga gis un seul parti boo xam ne moom mooy dem élection une dynamique de de coalition la ñuy demee donc je pense que war nañ ko mën a joyante ba nga xam ne vraiment après les législatives parce que j'imagine que euh, peut-être mën nañ dem ci législative d'ici quatre mois euh, après les législatives ñu xam kan mooy chef de l'opposition comme ça mu am benn passerelle boo xam ne day day exister entre le président le pouvoir et, le chef de l'opposition ñuy mën di jokkoo parce que démocratie yu mag yi aussi loolu loolu loolu loolu moo ci am sur certaines questions mais pour euh, Amadou Ba je pense que il a compris qu'il va faire d'autant plus que le président Macky Sall lui-même bien avant l'élection mais jël na partie bi dénk ko euh, président Mame Diop loolu tamit euh, c'est c'est un acte euh, qu'il faut analyser. parce que ñeneen ñu bëri ci ñoom dañoo jàpp ne Macky Sall dafa trahir Amadou Ba et même au-delà de Amadou Ba waa APR concernant ci situation bi nga xamante ne dund nañ ko ci élection présidentielle yi. de toute façon loolu moom xam naa ne l'histoire va. va encore révéler des choses parce que beaucoup de choses de se sont dites mais mënoo xam exactement parce que tamit autant on peut dire sax peut-être que président jàppale bi ni ko nit ñu doon xaaree mu wàcc terrain bi